ñu ngi leen di nuy di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismilla ci xibaar yi. Assane Gueye bakkan bu rot ca kaso ba ca njaareem alxamis jundu génn la woon ñaari prisonniers yu fa doon xeex kenn ka rey moroom ma coronavirus ginnaaw ba mu feeñee ci Sénégal RFM xëy di leen ci defal euh, ci lu yaatuy xibaar matuwaay yi nga xamante ni ñu nga ca ci wàllu faggandiku gi euh, malaat bi ci boppam di tubaab bi ko fi indee ak euh, ni ko kër docteur toppee bu file waaye wàllu cet geek xeexum jàngoro jeek gel ak yi mu laaj jamono yeeg manqué gi ci pharmacie yenn yi njiital Horizon Sans Frontières moom lu jëm ci wàllu ba tey jàngoro a di coronavirus dafa gis ne ci wàllu communication nguur gu Sénégal am na ca lu muy laq-laqal ñu dese coronavirus gi ak li nga xamante ni mooy njeexite yi mu nar a am ci wàllu économie bu Sénégal tourisme bi naka noonu loolu lépp daañu leen ko dégtal ci xibaar yi bitim réew Adja Binta Diallo maa ngi lay nuyu. maa jàppale waa Guinée ñu saytu fichier électoral ba fichier bi opposition bi ne dafa bëri lënt lënt coronavirus moom bi lëmbee àdduna bi yëpp ñetti junni nit ñoo ci faatu lu jege fukki junni ka tas ci juróom-benn fukki réew dinañ ci dellu si waat. incha allah Adja jërëjëf sport gi Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fay la jës. bisimilah wàllu basketball fédération sénégalaise bi jag-jagalaat programmation basket bi jëm ci waajal la nga xam ne moo di African Basket League bi loola moo tax ba nu kon ci njeexital ay bés bi danañ ca boole njàmbat genn gu bokk ko ca entraîneur Louga basket club Malick Bachir Diop ni équipe moobee dafa ñàkk ay jumtukaay bi tax mu xoddiku ca ba mu lakkaleegul wàllu Jeux olympiques Tokyo 2020 ministre ba ñu denk wàllu tàggat yaram foofee ne dàqut xalaatu ñu toxal yëf yi ndax coronavirus gi jërëjëf Malal yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM jàngoroy coronavirus ak pexeek yoon yi nu mën a jaar ba tàggoog jàngoro ji ci njaxtalu xibaar yi lay doon ci technique bi Abdoulaye Diop. alxamis ji ñu génn la xew jëye ji ca kaso ba ca diwaanu Njaareem ñaari euh, prisonnier yu fa doon xeex kenn ka rey morom ma leeral li Babacar Diouf Mbaye Diop génn na àdduna moom détenu la bu nga xam ne mu ngi nekkoon ci maison d'arrêt et de correction bu Njaareem moom nag li ko faat du lenn lu dut coup de boo xam ne nii maanaam kajj buñ ko kajj ci biir bi ki ko def nag benn détenu la ñu ne boo xam ne nii ñoom ñoo bokkoon néeg bi mbir mi mu ngi am alxames ci guddi bi ñaari waxtu jotee ñaari détenu yi nag tàngoor wu prison bi tàng ak xataay gu mu tax xat tax na ñu doon xëccoo fi nga xamante ni moom lañ bëgg a tëdd coo ci la ñu jotee ba xeex tukkee ci kenn ki ñàkk ci bakkanam ki nga xam ne moom lañ jàpp ne moom moo ko fàtt ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci néeg bi ñu ngi bàggante diggante police boobaak léegi foofa ab enquête lan fa tijji ñu fàttali ne mbay Diop dañ koo jàppewoon woon viol ak pédophilie ba tax ñu tëjoon ko juróomi ati kaso moom nag néewam bi yóbbu nañ ko ci Dakar pour xam dëgg-dëgg lan moo ko faat Diourbel RFM Babacar Diouf. jërëjëf Babacar administration pénitentiaire bu Sénégal daal di rëcc bu baax li xew ca ca Njaareem xam la it ne enquête ubbiku na ngir leerlu ci inspecteur régional administration pénitentiaire Thiès ak Njaareem la ñu ci àndal Yankhoba Dembélé ak Hadj Ndiogou Diène. ñu ngi masawu njaboot incident bi guddi la am côté 2h45, cinq ñaar détenu le chef de chambre bi fëgg porte bi garde nous monté woon ñëw atte leen jël détenu yóbbu ko infirmerie pour les premiers soins après ñu évacuer ko hôpital et son décès a été constaté à l'hôpital par le médecin de garde. lan moo leen jotale ñoom prisonniers yooyu doon xeex. bon enquête bi mi ngi nekk en cours parce que le procureur a été saisi il y a une enquête qui a été ordonnée par monsieur le procureur je pense que enquête bi dina ko éclaircir mais jàppal leen rek ba ñu doon xeex guddi la ci chambre bi à 2h45. koo détenu yëpp fekk nañ ko lu def yi nag enquête bi moo koy déterminer pour mu leer ci bopp ñëpp léegi waa ko dóor ba mu faatu anamu léegi. la première chose dañu def ba ñu leen séparé dañ ko jël yóbbu ko en isolement maanaam dañ ko jël yóbbu ko si beneen cellule pour mu nekk fa en attendant. mbir yi alxamis ci guddi la xew waaye dem euh, mbir yi di soog a siiw lan moo ko waral est-ce que du da ngeen ko doon euh, bëgg nëpp nëppal. xam nga administration pénitentiaire obligation bu mu am mooy rendre compte procureur su incident yi amee ak suñu hiérarchie maanaam le directeur de l' administration pénitentiaire ñun amuñu vocation incident am automatiquement ñu saisir presse bi di expliquer yoon leen rek la ñu laaj nañu saisir directement procureur de la république informé ko ak ñu informé directement suñu hiérarchie maanaam monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire leneen lu des nag yoon ñu ko pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. la doon tiit mujj am démb senegal am kaam bu njëkk ci jàngoro corona virus bu weesoo nag paj mi la ci gën a doon saafara mooy fagaru gi maanaam prévention ci wàllu woowu it set dara gënu ko ca ci l'école yi commencé nañu ko ci wàllu sensibilisation jëm ci élèves yi rawatina euh, Anokocha. soxna kan moo la jox sa masque. sama tonton. ah nee na pour lan la. pour ngelaw gi bañ a kii sama bakkan bi. Khadijatou mu ngi sol benn masque donte ne gone si amul lan mooy njëriñam dëgg-dëgg ca école sakku xam-xam bu Wakaam dafa mel ni élèves yi nekk CM2 ñoo gën a am xibaar ci feebar boobule yu ci mel ni Souleymane. coronavirus. Mhm. rey na ñu bëri si fu mu jóge. fan nga déggee information boobu. man si si bi. directeur école googule mu ngi xamal ni euh, sensibilisation bi war ñu ngi koy def ci lu jëm ci wàllu cet gi loolee laata sax ñuy wax waxu coronavirus fi ci Sénégal may Babacar Seck lay wuyoo. les jeunes étaient organisés ici chaque matin élèves yi balaa ñuy jël seen goûter dañuy avec le système de lavage des mains bu oo xam ne dañ koy jàngal xale yi. avant même ñuy wax kaa bi ñun organiser woon nañu maintenant li ñu bëgg mooy def benn journée boo xam ni parents yi dañuy ñëw ñu gën leen a informer. monsieur Seck di ñu won carton yi nga xamante ne ñu ngi fees dell ak ay produits eau javel ak ñoom yi seen daanaka loolee la ñu fekk itam ca bureau madame Diouf directrice case des tout-petits ca goxu Wakaam. d'ailleurs bi ñu déggee affaire bi tey suñu cours yi nga xam ne moom la ñuy wax langage dañ ci gën a waxtaan ak xale bien que dañ koy def tous les jours xale bi tout le temps dañ koy jàngal raxasu bul nuyu kenn mhm. avec la main bonjour ça suffit bu weesu tout tànk yi nag jàngalekat yi itam dañ leen sensibiliser ci euh, boobule feebar teg si tey jii bu ñu wàccee école ba noppi parents itam lañu ñu sensibiliser bu ko defee liggéey lé ñu woyal ko seen i kër. jërëjëf ana Rocha ministère bi ñu dénk njàng mi ci lëngoog ministère bi yoré wér yaram dal di tàmbali sensibiliser di ñaaxé gi euh, tambalé ko ci l'école bu né ci Wakaam ministre éducation sax lañu ci téwlu Mamadou talak ak Babal Gueye. ñun éducation nationale comme ni ñu ko defee woon si Ebola comme président de la République euh, le président Macky Sall ni ko waxee depuis maintenant pratiquement trois semaines nous aussi sommes nañu parce que nous savons que c'est à partir de l'éducation nationale ñoo xam sur les élèves privé et public nous ngi ci trois millions cinq Nous, élèves le ministère de la santé si nous, la ñu war a taxaw ànd ak ñoom mun maladie bi symptômes yi la transmission bi nit ak nit ak nan la ñu war a def pour defar li ñu wax ne prévention bi donc tey daal li ñu fi gis mooy wax dëgg yàlla ñu ngi lancé appel fii si Wakam lañ koy lancé appel bi nag mu ngi dem si élèves yi mu ngi dem si parents yi si acteurs yi ñoo xam ne ay bajenu gox maire yi ak yeneen écoles yi académie yi partout fii si Sénégal fii lañ ko lancé pour que éducation nationale comme ni mu ko defee woon avant ñu jóg ñun ñëpp nekk benn nit dem di sensibiliser di expliquer nit ñi ànd ak ñoom comme ça noonu lañ ko defee woon avant yàlla dimbali ñu ñu génn ci maladie boobu. fii am encore ren commencé nañu ci ndigal président la république. ak ànd ak ministre la santé ak yeneen ministre yëpp ñu dem ci suñu gox-goxaan yi ci suñu lycée yi ci suñu école yi ci suñu daara yi ñu jox leen ay documents wol leen explique leen pour que ñu xam ne maladie bi ñëw na. ministre éducation Mamadou Talla ci li nga xamante ni moom la ñu jóg tey ñoom kilifa yi ñu dénk njàng mi waaye ci lëngoog ministère de la santé ngir dugal euh, lii di yeete gi euh, ba ci lekkool yi ak daara yi ci Sénégal euh, cet gi ni ñu koy waxee saa su ne dara gënu ko ci ci wàllu fàggandiku gi moo waral askan wi jamono yi xër lool ci wutam gel antiseptique yi ci pharmacie yi ci xibaar sax dafa xaw a fan yi donte pharmacie yi ñoom xam le nañ ne njëg yi moom yokkute amu ca ay surtout bu ñoom gannaaw bu ñu tuddee euh, bu njëkk bu coronavirus ci Sénégal ñu ci bëri dañu daal di daw wutali pharmacie yi ngir jënd lii di gel antiseptique yi looloo tax mu daal di manqué bu ñu sukkandikoo ci jaaykat bi lee gel antiseptique non actuellement disponible de dafa xaw a manqué ñi ngi di laaj mais malheureusement c'est pas disponible. ñu dem ci beneen pharmacie naam am nañ ko waaye nag fas yéene nañu taxaw tem def ay commande ngir mu bañ a manqué euh, bu ñu sukkandikoo ci bi di. asua fu mu toll nii am nañ waaye saa su nekk dañuy def ay commande ngir bañ a ñàkk produit yuy rey microbe bi jaaykatu pharmacie yi di xamle ni rek jëg yi yokkuñu ko benn yoon am nañu sañ-sañ joxe seeni prix bopp Bon, les prix, les prix ça, ça, ça varie hein, en fonction euh, li ngay jëndee. c'est dans cette tranche 1200. prix yi ñoo ngi nekk diggante ñaari témèr ak ñeenti fukk wala juroom ñetti fukk ça dépend du produit bi nit yi ñooñu ko gëna soxla pharmacie yi mën nañu yokk noonu njëg yi waye ñun mom yokku ñu dara. ci pharmacie yu bari goudi yi li di gel antiseptique daal di fa manqué lolu nak dara waralu ko lu dul sénégalais yi gannaaw bu ñu déggé li di. coronavirus bugguñu am benn contamination. ay satu jërëjëf laago bi nag mooy joxeem loxo gi ca ku ne xam nga ni euh, loolee ne jàngoro ci yu ci bari ci lay jaar rawatina boo jëlee sab loxo yi laal sa kanam ak yeneen di wàllu bakkan wala gémmiñ euh, kon euh, faw nag ab diir ak dakkalandi ci wàllu joxeem loxo bi ndax Sénégal noonu la ñuy nuyoo waaye nag li nga xamante ni mooy gan gi moo laaj doxalin yu di mel danuy ànd ci leeral ak médecin interne bi di docteur Daouda Thioub ak Mouhamed Ali Mouba ci période épidémie bi ñu toll Euh, seetlu nañ ne en fait euh, transmission bi le fait que malade bi dafay wàlle par euh, li ñuy wax contact mooy le fait que ngay nuyoo nit nga xam ne il est contaminé wala nga laal loo xam ne dafa contaminé donc du coup li gën mooy bu ñu mënee tant que possible ñu jéem a éviter joxante loxo bi wala sinon saay boo génnee nga seetlu ne jotoon nga joxe loxo wala jotoon nga touché yenn environnement yenn malade yi ak ay genre yooyu noonu saay boo ñibbee nga raxas say loxo ak saabu ak ndox wala à chaque fois aussi que ci milieu extérieur bi nga xam ne jotoon nga am contact avec euh, ñenn ñi donc nga jéem a éviter éviter laalaat sa kanam mooy laalaat lu mel ni gémmiñ géeg wala bakkan yi ak ay genre yooyu noonu donc parce que loolu noonu moo bokk na ci mode de contamination yu gën a wàlle donc li ñu mën a wax mooy seetal loxo yi le lavage des mains euh, bon raxasu bi bu baax a baax bokk na ci moyen de yi ñuy yi ñuy jëfandikoo pour mën a euh, xeex ak dissémination jàngoro bi en fait ci Thioub ci li nga xamante ni mooy solo gu eh, cet gi ñeel loxo yi am ca loolee li koy maye mooy ñu téye sunuy loxo ci wàllu nuyo gi ba ab diir du ñàkk incha allah ngir ak tàggoog jàngoro ji di coronavirus ki nga xamante ni nag eh, ci la jaaree ci moom doomu France bi ay jaar-jaaram ci wàllu kër docteur bokk na ca SOS médecin gi mu woote ñu jox koy tegtal ci wàllu li nga xamante ni mooy taxawaay gi ci war ngir kër docteur SOS médecin nag di leeral ne moom malade bi musul teg tànkam ca clinique ba ni ñu ko waxee ci jokkoo bi eh, lañu moom ginnaaw si la xam ne euh, symptôme di ay wàllug màndarga yi nu njort jëm ci coronavirus bi mu ngi ak moom ñu yëgal ko kër docteur Salimata Aw demoon na ca SOS médecin ci buntu SOS médecin ñetti ambulance couleur jaune ak bleu gaare fa ngir dem ca secrétariat bi foog nga yéeg ci escalier yi ña fay liggéeye nag ku ci ne mel na bugg ñoo addu ci mbir mi ci ndorteel li bon c'est que je en contact avec. Euh, ñu xaar lu ëpp fukki simili benn soxna madame Diop ñëw di ñu xamal li nga xamante ni moo am foofee di SOS médecin. Je suis avec des des journalistes de la RFM. RFM veulent avoir des précisions. Euh, parce que je leur ai dit que c'était le patient n'est jamais passé à SOS. E ci noonee la ñu docteur Boubacar Signaté mon médecin urgentiste la fofé, di dellu si waat ci li yëf yi naka la demee dëgg-dëgg. moom mi ngi suñu standard euh, le vendredi 28. donc bi standard bi identifié baat yooyu dafa basculer appel bi ci ben médecin régulateur il se trouve que man maa doon réguler euh, bés boobu maa gardé woon donc euh, ci lañ woo patient bi moo ñu woo ko complété interrogatoire bi gis ni cas bu possible la par rapport ak fi mu dëkkoon France euh, bi muy ñëw fii fan la jaar ak ban bés la egg fii ak li muy jàmbat bu loolu bu xewee nag bu mu bu ñu amee information boobu yëpp dañ ko jox ay digle donc dañ ko ne mu des këram donc mu bouger famille bi aussi nañ des këram moom mu beru ci benn néeg euh, sol masque parce qu'il se trouve que amoon na masque. ginnaaw bu ñu waxtaanee ci téléphone ba légui ak ki am jangoro ji dañu daadee woo kilifay keur docteur yi wanté ba légui malade bi tégul tankam fofé ci SOS médecin. ensuite ci lañu wo cellule de crise ministère de la santé bi envoyé ko ay pré euh, ay préleveur donc këram lañ ko fekk def prélèvement mom bougé wul kër gi. Euh, ñëwul SOS médecin benn médecin yéegul euh, ci këram. ñooñee nag di liggéey ci bërëb boobu di dalal xelu sénégalais yi nee na li leen mën a artuloo mooy rekk li njëkk te mujj cet ci sa bopp ak li la wër. amna solo Salimata walu communication bi nak di li nga xamanteni moy joxinu xibaar yi tukkee ci nguur gi boobaak bi fi jangoro ji feeñee njital ONG bi di Horizon Sans Frontières dafa japp ne da am euh, ak làq manam maanaam euh, ñàkkam lerange Boubacar Sey moo ni mu nekkoon tay ji ganu RFM matin il faudrait une gestion beaucoup plus transparente pour euh, mener gérer ce problème là so xoolee démb ni ñu annoncé affaire bi ñun amna ño xamni sen xel tay na ci tout d'un coup on parle d'une réunion de crise et puis après le Sénégal est menacé après il y a un cas je crois que ça a été une mise en scène bo xamni euh, les gens ont compris cela et pourquoi ñu xaar ba tay et pourquoi nous nous nous avions eu à tirer à la soleil de ëpp un mois pourquoi ñu xaar ba tay pour def une plan d'action ça veut dire que donc le virus était déjà là koy nous nous avons fait un débat avec le directeur de la prévention

l'heure n'est pas à une polémique, mais une stratégie commune de gestion de cette crise-là dans la transparence pour mener à Sénégalais. Té ñu bari té nañu ci vu scénario que février bi février fi won. ils sont obligés de le dire. Maintenant biñ ko waron wax, biñ ko waron wax yag aussi jël ay matuwa

confinement mise en quarantaine la mise en observation ay termes la yo xamanteni ni mën nañ ko utiliser ci walu médical yooyu yëpp ay mesures la restriction danaka dañuy wàññi déplacement yi wàññi contact yi mesure exceptionnelle ngir ñu nit ñi jaxasoo bi mën na taax kon jàngoro ji law ci wàllu isolement am nañ isolement septique wala isolement aseptique isolement septique bi mooy daanaka koo xamante ni daa jàpp nañ ñi dafa am doomu jàngoro joo xamante mun na lor ñu isole ko ngir mu bañ a wàll ñeneen yi isolement aseptique bi mooy koo xamante ni dañoo njort ni amul doole amul défense yu bëri ñu isolé ko moom pour que yeneen microbe yi bañ koo moom laal mise en quarantaine moom dañ koy def bu fekkee ni jàpp nañ ni nit ki am na maladie bi pour mu bañ a ñeneen ñi waaye nag mun nañ def mise en quarantaine ca kër ga walla ñu def ko ci foo xamante ni bërëb médical la sa dépend waaye nag mesures yi daanaka même chose lay doon contact yi dañ koy wàññi naka noonu itam malaat bi day jël température am bu sentiree loo xamante ni lu normalul mu avertir kon équipe médicale yi mise en observation daanaka itam noonu la malaat bi dañ koy suivre bu ñu sentiree nii dara am na ci moom ñu mën a réagir nu mu gën a gaawee. Ali mu jër jëf ñu des ak jàngoro yi coronavirus ak njeexite yi nga xamante ni nag du ñàkk mu am ko ci koom-koomu Sénégal njort nañ lu ni mel rawatina acteurs yi ci wàllu économie leeral li Amadou Sabax Ba jàngoro bii di coronavirus mën na laal li nga xam ne ne mooy koomu réew mi bu ñu sukkandikoo ci Thierno Thioune nekk maître de conférence ci wàllum koom ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di xamle ne na laal li nga xam ne ne mooy dem beeg dikk bi ci wàllum commerce. li ëpp ci consommateur demande intérieure bi nga xam ne tey ñu ngi koy importé mu ngay jugee Chine parce que trente cinq pour cent importation Sénégal yi Chine lay jugee. bu fekkee toll na noonu te jàngoro ji di jugee foofu loolu mën na Chine ay produits bon marché la doon accessible si ñoom. fële ca ministère bi ñu dénk wàllum commerce di xam ne ne fi mu toll nii amuñu benn njàqare naam sax Chine bokk na ci réew yi nga xam ne ne moom la ñuy gën di jëflanteel ci wàllum commerce Ousmane Mbaye. suñu jëlee Sénégal nag dina xaw a jafe ñu mën ko natt te it natt ko léegi. ndax euh, suñu wàllu exportation Chine mën naa ne mooy suñu onzième client li ñu fay exporté li ci ëpp gerte la donc ci produit yooyu jusqu'ici amatuñ ci amaguñ ci benn jafe-jafe c'est vrai que ñu koy def ñu ngi commencé signaler ay retard yi am cargaison yi nga xam foofu la daan jógee mais mel noonu it euh, ay produits la yoo xam ne nii que am na feneen fu ñu ko mën a jëlee fu dul Chine donc ba tax na daal amaguñ crainte buñ ci mën a am ci wàllu woowu li nga xam ne ne moom lañ naan politique budgétaire loolee yëpp nag ci diir bu gàtt lay doon ngir mën a xeex lépp li nga xam ne ne mooy coronavirus waaye tamit gën a jàppale entreprise yi nga xam ne ne dañoo digg doomu. jërëjëf Amadou Sabax Ba tourisme nag noonu it euh, ñi nga xamante ni ñoo ci yëngu rawatina euh, ca euh, Mbour ak la tofook Petite Côte bi dinañ ko yëg bu baax wala tàmbali nañ ko sax di yëg ak yenn réservation yu seen i borom niilal séminaire yenn yi naka noonu Abdourahmane Diallo. ginnaaw bi ñu waxee ni am na kenn ku am coronavirus ci Sénégal. ñii du yëngu ci wàllum tourisme commencé nañoo gis jafe-jafe bi nga xam ni feebar bi mu ngi koy indi dëgg la sax bëgguñoo wax ci micro yi waaye ñuy xamle ni jafe-jafe yu tar la ñu nekk di jànkonteel fi mu ne nii kenn ki nga xam ni sax jot nañoo wax ak moom mu ñuy xamal ni lu toll ak fukk ak juróomi nit woo nañ ko ngir annuler seeni réservation keneen ki moom di ñu xamal ni ñaari séminaire fi mu ne nii annuler nañ ko mu doon mbir mi nga xam ni xaalis bu bari la ci ñàkk ci lu mooy ñaari fan bu ñu sukkandikoo ci suñu ay xibaar ñi nga xam ni dañu annulé seeni réservation donte sax ci réew yi ñuy jógee coronavirus am na fa waaye jumtuwaay yi nga xam ne def nañ ko Sénégal dalul seen xel li ni mel sax a tax ñu am yéene des ñoom ci seeni réew mu doon mbir mi nga xam ne nag ëlëb na ñi di yëngu ci wàllum tourisme ñoom ñi nga xam ni sax ñuy le ni ren ji saison bi taxu koo baax ak feebar bi wala boog coowal coronavirus bi ragal nañu ci lu des ci saison bi li ni mel sax a tax ñuy dànkaafu kilifa yi waaye tamit média yi ngir ñu amal communication bi nga xam ne dina dalal touriste yi waaye tamit buy rafetal deru sénégal rfm bour abdourahmane diallo RFM bitim réew. Adja bint maa ngi lay ziar. delloo ziar Alaja coronavirus mu ngi wéyal ak lawam ci àddina. ñetti junni nit ñoo ci faatu jege na fukki junni nit yoo xam ni ay cas yu ñu confirmé la ci juróom-benn fukki réew ci biir àdduna bi yëpp Afrique nag desul ginnaaw ci feebar bi Sénégal Tunisie ak Maroc bokk nañ ca ci ñi nga xamante ne Covid 19 gañe na fa dañ ciy ànd ak Adja Mariam. lu jege coronavirus la ñu nemmeeku ci àdduna wërngal këpp fii ci Afrique laal na lu toll ci ñetti dëkk Sénégal Tunisie ak Maroc ku ci nekk ci ñoom enregistré nga benn cas ci feebar bile ñu àddu jëmale ca France foofu ñu nemmeeku lu toll ci ñaari téeméeri cas te juróom benn fukk ak benn yi nekk ci benn bés bi yeneen dëkk yu mel Tunisie Arabie Saoudite ak Lettonie jot nañu seen wàll ci feebar bile Lettonie moom enregistré na kaawam xaajam bu njëkk foofu ci États-Unis juróom benn nit yu ñàkk seen bakken ci coronavirus bi lañ fa nemmeeku loolee mi ngi am ca état bu wax Washington waa Simon moom ñoo ngi ci ab tiitange bu metti ndaxte benn salarié bu nekk ci aéroport bu Paris moom moo amee boobu jàngoro ka bu Portugal ñaari nit la fa dal direction générale bu Portugal moom moo ko xamle ca États-Unis ba tey ñaar fukk état jël nañu seen wàll ci Covid 19 bi. yi ñaar fukk ak juróom kaa ca Norvège dëkk bi am na juróom benn cas yu yees tey jii juróom ñaari cas ca Chine ñu nemmeeku fa ci ay nit yu bàyyeekoo ci Italie. Euh, xanaa rek euh, wax ni El Hadj Assane Marseille jot na moom itam wàllam jël nañu léegi ci xibaar bi ci France 24 ñu ni euh, génne nañ fa benn cas sànq. ñu daal di dem ci euh, CEDEAO mi nga xamante ñu ngi leen di xaar tey ay président Condé kon nangu mission CEDEAO ñëw ci réewam waaye nag euh, du ay président ñi nag seen xam-xam dafa màcc ci élection la ñuy ñëw tey sa Guinée fichier électoral fichier électoral euh, opposition bu Guinée da ko rejeté woon ci parti li ndax ñoom dañoo ne dafa am te mujj ga euh, président candidat daal di koy dàq ba jëmi jamono ak euh, jeexale Alaaji mm. ak euh, artu président bu tur bu Turquie Erdogan mom nak dafa tek pression ci kaw réewu Europe yi té nee nak buñu bu ñu moyuwul dina ubbi ay frontière am migrants ya jàll wutali Europe président turc nak nee lu mu bëgg mooy juste partage du cadeau manam ñu bokk cadeau bi nga xamante mom moy migrants ya nek fofu ci Grèce bobu ba légui vendredi ba légui nak ay nit ñu bari dañoo dem wutali frontière yu Grèce mu ne nag bu Europe yënguwulee moom day ubbi frontière ya ñoo ñëpp dugg ca biir euh, Europe moo looloo moo tax nag Union européenne daal di jaaxle ba ëllëg sax daal di nay convoqué benn réunion d'urgence ca Bruxelles lu ñu bëgg ñu ni saytu ba lu ñuy jàppale Grèce ak bulgari gannaaw nag président Erdogan jël na dogal daal di ubbi ay frontière am. ko tuddee daal. <laughs> malal ñu tàmbaleeg basket beeg fédération bi nga xamante ni calendrier compétition jongante yi ci wàllu góor ñi daf ko bëgg a xoolaat. daf ko jag-jagalaat la sabab loola mooy organisation gu ñuy amal fii jëm ci compétition internationale ci wàllu club yi muy euh, basketball african league bi war a tàmbali ci ay bés bi di euh, teru moo tax kon journée bi ñu war amal muy ñeenteel bi journée jëm ci euh, championnat bi bis ñi tey ci ngoon lañ ko daal di kon tàmbali ci góor ñi Atoumane Ngay moo yore programmation ca fédération ba ci micro ñu un programme weekend boobu yëpp ñu ngi koy dindi ñu ko dindee à la place léegi au lieu ñuy jouer weekend boobu ñuy may chance pour euh, équipe douane bi moom mu recevoir gane bi ñëw léegi pour ñu rattraper ko nous serons obligés de jouer à l'Arba, alarba alxames pour rattraper euh, journée boobu ñu bàyyi woon pour la douane mais du yàq dara suñu championnat bi je pense que calendrier général actuellement ñu ngi koy déroulé période boobu day nag daan nekk nekk suñu sixième wala septième journée uh, au niveau des garçons et e, e des filles. AS Douane Sénégal lay uh, teewal waaye tamit uh, fédération sénégalaise bu basketball war na cee ànd ak moom est-ce que ci loolu ñaax ngeen yenn club yi ngir ñu ñëw dimbali AS Douane. ñu war a njëkk a def mooy d'abord gërëm président Demba Seck nga xam ne tey jii mooy président wu ASC Douane devoir am def na ko mooy. aujourd'hui woo na président club yëpp envoyé nañ correspondance wax ma seulement club bu Dakar woo na club nekk Sénégal yëpp ku nekk jox na la correspondance pour yëgal la ni xew bi am bi te bu doon sagoom daal ñëpp di ko si loxo kon ñëpp dañuy ñaan yàlla yàlla suturaal ko may ko ndam bu rëy rëy beneen mooy Babacar Ndiaye comme ni nga ko xamee mooy président fédération bu Sénégal am naa yaakaar ni Fatma suba war na oo club bu Dakar yu nekk Dakar yëpp ak képp xam daal sore woon Dakar jegañ nga nga ñëw jàppale de douane pour moom réussite parce que réussite bu amee d' accord douane mooy njëkk am ndam bi waaye itam Sénégal mooy am euh, euh, boobu jàpp nag ni kon tey ci ci ngoon ci ñeenteelu journée boobu si góor ñi Louga basket ak ISEC ñoo dee suwe bopp ak waa AS ville de Dakar AS douane bi war a dem ci jongante joojee dina laa lekk waa sandark bu Ndakaaru la ci des dinañu ko tëgg ëllëg ah gannaaw ëllëg. Louga basket ki jafe jafé am i jafe-jafe bok na ca ñak sax nak bal bu jak bo xamni ni ko jëfëndiko ngir tagatu li motax ba sen entraîneur bi di Malik Bachir Diop ni kon ëpp na té wa Louga war nañ jóg ci lu mel ndax li sen ab gatcha la kaddu mi mi ko yëkëté ci micro Abraham Poulpouy. mënuñu travailler avec 18 jours nak di yor ay juroom benn ballon juroom benn ballon mënoo travailler lancer franc nga jël ko tek ci weñ gi lu toll ay 20 lancer franc nga tek ko ci rat ba pa gagné mais dafa am yo xamné dafa ndaw so dëkkee Louga nga né man dama Louga ñambur ak Louga nek benn yoon benn président yor

loué ay car Tata ça veut dire que ça va mal ñàmbur day day day recevoir fii wala jéewul ñun am nañ car ñàmbur ne euh, président Moustapha Diop la ñu jël car bi jox ñu ko ñoom wala mënuñu ko jox ñu jox ñu deuxième car ñu voyagé moom bu ñu demee Dakar ñun mettre ñu condition yoo xam c'est le minimum man loolu man dama koy itam sama cri de cœur te ñàmbur ñàmbur boo xam ne mën nga ñu aider rek na nga ñëw jënd benn ballon sa sax bu la neex nga ñëw jox ñu ko ñu staff ñu mën ci liggéey pour tarkal mhm. loolu mooy la mu yëkkati ni mu jàmbat. waaw maam koy jafe na nag ngir équipe mu mm. daal di ami ay résultats ci yi condition mhm. Jeux olympiques deux mille vingt ak njort ak report di toxal gi. boo ko ci ministre Sapone ba ñu dénk tàggat caram gi nee daal lu tax mu yëkki xalaat gu ni mel ci waxtu wi nga xam ne waa CIO ña ngay amalab ndaje ca euh, seen daluwaay ca Lausanne. ne euh, wisaare goo xam ne ko gis muy wisaare ko ci àdduna bi muy jàngoro coronavirus ji moo tax moom jëriñ jëm mu yëkkati kaddu yi soo mu war a am ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru sulet jàpp juróom-ñeenti fan ci weeru août atum 2020 jeux olympiques yu Tokyo yi nag ci ayu yi ñu génn li di épidémie coronavirus nag tax na ñu bëri di lam-laamee ndax dañ koy dàqam déeta bu fekkee nag yóbbu ko ci beneen ville comité international olympique du ko nangu dat wanu jàpp jeux olympiques yooyu le mën nañ koo puusandi bu ñu sukkandikoo ci site français bi di RMC Sport ci ab réunion parlementaire nag ni ki talaata ji Seiko Hashimoto di ministre japonaise bi nga xamante ni moom nañu dénk organisation organisation aux Jeux olympiques yi xamle na ni contrat ba mu signé ak wa CIO mën na leena may ñu indi ciopité ci date wi ñu wara amal Jeux olympiques yi président wu CIO bi nak di Thomas Bak mom nak limu xamle mom modi comité international olympique bi jamono ji mi ngi def kem katanam ngir amal Jeux olympiques Yo xamanteni dina réussir Thomas Bach nak ci aljuma ji ñu genn xamle won na itam ni CIO nopi na ngir dal di organiser Jeux olympiques Ye. te lolé nak nara tambali tàmbali ci ñaar fukki fan ak wéru benen membre bu CIO du di canadien bi di Dick Pound momit xamle na ni comité international olympique bi jamono ji xalatul ou wala dakkal li nga xamanteni mom modi organisation jeux olympiques yoy ci Tokyo L'olé nak, tank organisation mondiale de la santé waxul mu def ko Fimnek nek ni nak kon ñu japp ni baña organiser jeux olympiques nak, ci guddi ñu tollu waxaguñ ko waaye nak lolou tamit bu amone dina metti torop ci Japon ba nga xamanteni mom moy dalal xewmi te def ci copar gu takku. malal gannaaw télé talaata maa ngi dem def sama bopp quarantaine <laughs> def sama